ñu ngi noonu ci demi-finale bi arbitre bi sifflé na Boy Faye ngay ree Ablaye Senghor Boy Faye demi-finale poids fii ci terrain gaal gi Mango Production moo ñu fi woo ndaysaan Mango Production moo fi woon ñu ngay leewaatoo Boy Faye bu doon maa yow dooree ndeysaan ñu ngi ci demi ba tey ndeysaan ndeysaan ak Boy Faye ñoom ñaar ñu ngi noonu ci compétition bi Laye ak Boy Faye Boy Faye daw ci demi-finale ndax ku daan da ngay dem final diggante Gora Mbour gi ak Mamadou Gaskel Diamé loolu de am na problème Adama Diouf kàttan gii ma gis mu yor macha allah bu jàppee wulli bu ko dablu ma xam ne lépp dëgg wulli xaw ma waaye bu yoboo loo mën entraîné ko Adama Diouf mi ma mu ngi ci état de forme bu garaaw waaye te nag wax dëgg wuli sama xarit la Boy Faye daw nañ jëli ko dinañ la daan Boy Faye dinañ la daan daan nañ ko daan nañ ko daan nañ ko daan nañ Boy Faye